ne neexul nga tukki say waajur nelaw sa ginnaaw neexul nga bugg a ñëw ñëw ziyaare leen ngay waaj ñaari we rek a desoon ci mu ñëw ñu def ko jëf ji donc euh, naqar beeg tiis bi daal moo ci ëpp. mais bon ay jullit lañ dañuy nangu dogal li ñu ci gën a bëgg daal ci ëpp solo mooy ñu jéem ñu rapatrier corps bi ñu denc ko Daaru Salaam ni mu ko souhaité woon rek pare nag justice bi il faut que ñu ñu teg ko ay daan yu métti même si du indi suñu suñu frère mais au moins loolu daal fi nekkee nekk nii moom lañ ko mënal daal